des projet et des milliards. Ah. En tout cas, c'est à la une presque de tous les journaux. Séminaire intergouvernemental euh, franco-sénégalais bi peut-être bokk na ci la à la une yi nga xam ne war nañ ko mën a waxtaanee. Euh, euh, Pas Assane. mais également semaine bi euh, c'est émaillé par euh, cette information la ay euh, mm, tuuma yoo xam ne gàllal nañ ko encore ci ndodd di Ousmane Sonko ñeel ay financement parti politique ay financement occulte yu ñu ne Ousmane Sonko da ko da ko am à travers des partenaires pétroliers yoo xam ne Qatar la ñu bàyyee ko loolu aussi peut-être mën nañ ko mun nañ ko waxtaanee mm. Mm, pourquoi aussi tegaat beneen beneen cadre aussi mun nañ ko waxtaanee aspect social bi mm-hmm. ak université yi nga xam ne tëj nañ ko tey waaw ko si def di alerter dem nañ sax ba taper du poing sur la table que ne c'est basta il faut qu'on essaie quand même de réouvrir les universités parce qu'il est temps xale yi dem dem jàngi pas mal de d'actualité yoo xam ne war dañ ko mën a waxtaane mais peut-être on va démarrer euh, sur euh, les financements des partis politiques atia moi moi moi je loolu xam nga ci jamono fii mhm. dëkk bi dëkk bi dëkk bu bu bizarre la yéeme na torop dëkk bu xaw am dama xamul ndax euh, ki may seen nii du ko. moom la kay Cheikh rek lay def. moom la kay te noonu la bëri histoire. waaw day day pareegul. pareegul day tardé dafa di jaabante. daanaan la kilifa la. <laughs> ku ko mënal dara. nangu rek. benn affaire daal la ma laa wax soxna si. Mhm. Euh, dañu nekk ci réew boo xam ne mhm. dafa am ñu jiite. ñu waxoon ne jox leen ñu. ñu amoon yaakaar lool lool lool ci ñoom yaakaar ah yaakaar bu fort boo xam ni 2012 nit ñi fii ci devoir liberté 6 feetu nañu. Mm-hmm. ndax waaw Abdoulaye Wade daanu na ndax dañu demoon ba d'accord tuñu ak régime. Mm-hmm. tey loolu daloon président Abdoulaye Wade lu ko raw moo dal président Macky Sall. Mm-hmm. différence bi nag mooy président Abdoulaye Wade moom ba mu demee ba xam ni jeex na dafa nangu ni jeex na. président Macky Sall tamit ñu ñu ñu ñu nangu li mu ñu won ne moom tàggoo na day dem. Mhm. ñu téyandi loolu. en Cheikh ñu jàppandi loolu. waaw. Cheikh Tidiane Gomis bonjour. Eh, bonjour. ma rek ma duggal ko moom day wane boppam. namb naa la. comment tu vas surtout amoo ci dara. <laughs> tàdd rek nga amul ci surtout. da ngay absenté ba <laughs> yow xoolal. ñaari kii ngay boole ñaari di di erreur ngay boole. Paa Assane. dugg naa toog naa tu t'absentes et tu es en retard. xoolal Paa ñëw na ñëw naa de. Mhm. def na ko ci calmement kenn xamul mais yow yaa feeñal. waaw parce que maay feeñal lépp dañ ma fay teg pour may feeñal lépp. <laughs> waa nga feeñal sa waa plateau bi de. mu <laughs> dugg foofu. <laughs>

ay mbiram daal day mat moom day mat la de. Eh, des fois mais des fois des fois affaire yi day kii nag. ay yee moom gis na loolu de loolu moom boo gisee moom léppay mat. waaye yow mii. lën lën mat la woo. yow. mat la woo kan yow war nañu wax ci yow. xoolal ah moom mooy. di di juqi waa rédaction daal kay leen yéeg. ah <laughs> mooy moom mooy mooy kii. il est petit déj c'est lui qui petit déj. <laughs> gisoo may tendance naan ma réveillé daa yaraax. <laughs> nuyu naa la. waaw waaw waaw maa lay fay di fay pa di nuyu pa Assane Seck di euh, lay nuyu yow mi tamit waaw bu si kanamee rek mm. dañuy ñëw parce que daal am na loo xam ne mm-hmm. mu ngi am autorité yaa ngi koy seetaan euh, waa nawetaan ñu ngi koy seetaan mm-hmm. mooy la violence encore waaw toujours la violence te ba léegi mm-hmm. amuñu ñoom gis ñoom euh, solution pour régler le problème. parce que loolu affaire bi dem na ba léegi da ngay gis koo xam ne day ñëw gaar euh, day ñëw teg otoom. yoonam nekkul ci dara ñu ñëw ñu toj ko yàq ga ay nit di leen kii mm. eh, eh, xam nga doo mën a aw fii parce que am na nii nangam yooyu daal il faut ñu dinañ ci waxtaanee ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk banlieue xam nañ ci dara quand yaa match c'est compliqué on sort pas doo dem fenn paasan euh, ñu ngi woon ci ci point bu am solo mhm. muy euh, le financement des partis politiques qui repose encore ce débat là gannaaw bi ñu tuumalee Ousmane sonk ne dafa jot koppar gu takku jaarale ko ci ay bon groupement pétrolier yu jógee Qatar. dafa am. Euh, tuuma yoo xam ne nii ñaari journaliste wax nañ ko benn député dëggal ko. waaw dafa am dafa am loo xam ni faw ma defal la ko. Mhm. foo xam ni fa lay sukkandiku te te partie bu am solo la. Mhm. Euh, boo xam ni euh, canard enchaîné bi ñoo tudd daf ko def dama la koy wan. Mhm. xamalu canard enchaîné def. loolu parce que c'est un papier qui est au mois de juin. lu tax juin ba tey. dara xewul kenn waxu ci kenn tudd ko lu tax tey tey moment bi lañ koy tudd. Mm. juin juillet aut septembre octobre novembre décembre. à deux mois de l'élection. Mm. yéen xeex ngeen nit jàpp te tee jeexul lu des ah moom kat am na bayre boo xam ne dem na sax ba fa mu toog fa mu fa ñu ko làq bu ne <laughs> gauche ñëpp ne gauche bu ne <laughs> droite ñëpp ne droite mm. kon nañu fexe ba ñi ko topp gëm ko. nu rocc ko ci xol yi. Mhm. yow yàlla. kanaar enchaîné dafa am lu mu wax mu ne. Mhm. te kàddu googu nañu ko bàyyi xel bu baax pour nu comprendre Cheikh Tidiane li nga xam ni moo nekk di am. Mhm. ñu ñu ñu bañ a juum. Canard enchaîné dafa wax le 7 juin. réew mi yàlla na ko yàlla sàmm. ñun dañoo am affaire ak ñoo xam ne dañoo dañoo sew. Hmm. ba pare xarañ. Hmm. Hmm. tubaab àdduna du yàgg ba mu gën ñu. waaw. mënut a gën c'est impossible. waaw waaye am na am na lenn loo xam ne yàlla defal na ko ko mu xaw a mel ni daf ñu ci ëpp. dayo te ëpp ñu ci dayo xëy na suñu sàgg na tax. ñoom dañoo am fulla. bu ñu soxlaa Cheikh Tidiane dañuy woo Cheikh wala ñu dem kër Cheikh Tidiane ne ko Cheikh dañ la soxla. léegi Cheikh ki la ne dama laa soxla moom fulla bi mu am ba ñëw ba ci ne la dama la soxla doo ci def la nga ca mën. ak fa nga ca mën a yem. Mm-hmm. léegi yow boo amee fulla da nga ko naan ah soxla bi la tax a jóg di wax dëgg yàlla pour nga mën a am li nga bëgg faw nga def lii xam nga am nga fulla wax ko lool. Mm-hmm. moom mu ne la non non non non dama ko soxla damay jël nangam nangam sa biir kër nooy def eh, jógal yow jógal waaw léegi bu fekkee amoo fullay nag ne ko jógal génn nooy def mooy li dal Sénégal dal Afrique ak tubaab yi tubaab yi bu ñu demee Qatar dañuy sukk Qatar mhm. dañ leen ne ñun suñu dëkk bi mhm. góor jigéen du fi yëkkati baat mhm. boroom ñaari tuut du fi taxaw dañ koy kil dama lay dëggal rek rek nga continuer ci li nga wax man mii dem Qatar Euh, euh, euh, loolu dama la koy gis nga foofu. wax sax moo bi sax. nga wax ko fa sax am nga problème. am nga problème. ci coupe du monde. xam nga coupe du monde nu mu toll xam nga FIFA doole bu mu am. waaw ah, waay FIFA am doole. FIFA buy organiser coupe du monde ci dëkk. <laughs> waawam ci waawam ngay topp. dëgg bu baax la ma lay wax. Mm-hmm. Mm-hmm. FIFA mooy mooy organisme boo xam ne dans le monde moo fi ëpp xaalis moo ëpp xaalis ONU. FIFA fédération internationale de football amateur. gis nga bi allemand yi ñëwee. allemand yi dañoo ñëw atterri ñëw ñëw ak avion boo xam ne. dañ ko kii LGBT. logo bi waaw logo bi moom la ñu avion bi. parce que ñoom ñoo ñoo leen sponsorisé. Qatar dafa ne avion bi génnaat dëkk. moo génnaat dëkk bi. daa génn dëkk bi dem ci beneen dëkk. wàcc foofu gars yi utaat beneen avion ñëw. waay ñëw toog man ma loolu loolu moom laajal ñëpp. waaw laaj ñu demul coupe du monde ba amul li mu wax nii laay dëggal. Mhm. ci loolu. góor jigéen foofu Qatar xaw ma de. waay Qatar. waaw ah, foofu ñoom ñu fa baax le waaw léegi. Mhm. li mu wax nii. Mhm. parce que xew-xew Sénégal dafa bari luy xew. dañuy dem sax fekk kilifa diine bi dugg ci biir këram ne ko yëg nga mais ndekete waa ji maanaam biaisé info ba sëriñ bi fas kanamam léeg-léeg kilifa bi fas kanamam. Mhm. meral diw ñu naan ah fekk nit a yàq xelam. Mhm. je benn extrait. li Canard enchaîné bind. l'opposant qui se réclame de l'islam mouride l'islam local mouride mhm. luy l'islam local mouride <laughs> mu du du religion l'islam mooy religion. Mhm. mais xam nga lu tax nuy tubaab yi di bindee nii dañuy ruube. dañu aay. Mhm. dañuy ruube maanaam dañu mën a fekk nu lu baax nu ñu ciy duggee ba dara problème am ci lis l'islam local léegi dañuy def ñaar dañuy pompe ba pare di di ëf di bàyyi muy muy muy def ni mhm. l'islam local mouride après ñu teg ci donc il est opposant il est il est il se réclame de l'islam local mouride et également partisan de la peine de mort et de la criminal criminalisation de l'homosexualité maanaam Ousmane Sonko islam local mouride la bokk dafa bëgg soutenir peine de mort. àndul ci mbirum borom ñaari tur. maanaam ñu katale ko ko. ci benn sens terroriste du terme dugal ko fa. Mhm. nii suñu sunu régime bi di waxee terrorisme terrorisme fàtt nit ñi depuis longtemps di ko wax. Mhm. maanaam day am ñoo xam ni faw nu organiser wu ba dugal ñëpp ci loolu ba ñëpp adopté ko. Mhm. xam nga luy objectif bi. ñi bëgg nañu ko rejeter. léegi nekkatul sonk dina bokk du bokk nangam ak nangam léegi xam nga luy problème bi Sonko du bokk waaw xamee problème bi mooy Sonko même bu bokkul sax mën na fal kii bokk. parce que bu waxee rek nit ñi topp ko kon nañu fexe ba bu waxee kenn dootu ko déglu c'est ce qui se passe. Mhm. c'est mon avis. Ah, mën na nit nag mën na ne ma ah, attention tu es un journaliste ah. sois équilibré euh, ne ne sois pas euh, bul jàng quoi gëstul léegi ñu gëstu. écoute bien ce qui entre autres lui vaut l'appui des frères musulmans en mars 2021 après une première arrestation de Sonko le leader frériste égyptien Saber Mahlour appelé à soutenir à le soutenir sans réserve après ñu ne l'argent du Qatar principal bailleur de fonds Qatar kii mooy wax de euh, Canard enchaîné mhm. l'argent du Qatar principal bailleur de fonds des frères inonde le Sénégal pour convaincre les murit de soutenir Ousmane Sonko c'est grave ça yow muri muridiyaa gi mën na noo sàggan ba nit naan leen jàppale leen nit te neexu leen ci xel la ñuy wax de ba pare dina jaarale ko ci xaalis. ensuite ci koppar yow murid yi am nañu koppar ba mu doy de. beneen bi ci des beneen bi ci des ils disent que c'est un diplomate marocain qui l'aurait dit et que plusieurs sources françaises soutiennent la même thèse waa léegi. source française mooy source française mooy maanaam les réseaux français maanaam ñun Sénégal lu ñu français yi wax loolu la ñu war a gëm. Mhm. léegi ñu léegi dañu wax ñun ah attention bu leen jàng vous êtes des journalistes léegi ñun ñu ñu gëstu. xam nga lan moo la gëstu bi tubaab yi ñoo la wax ni les frères musulmans Qatar ak ña ca des dañ leen di financer jàppale leen daanaka ñu nekk ay terroristes. tubaab yi ñooy taxaw ne Qatar dafay souten soutenir Hamas muy songu Israël danga wax bi. waaye tey Israël seen ay otages pour ñu bàyyi leen ñoom dañoo nangu Qatar intervenir pour que ñu bàyyi ñenn ñi maanaam ki lay wax ne la Qatar baaxul moom mu ngi soxla Qatar. xaw ma ndax dégg ma. ca wet ga français yi naan la ah waa ji dafa jot encore que ñiy wax ci information ne Ousmane sonk aurait reçu wala jot na article bi waxul loolu article bi dafa ne dafa am ñuy jox alal murit yi pour ñu jàppale kii. Mm-hmm. gis nga différence bi maanaam joxuñu Cheikh Tidiane mais dañoo jox Aïcha ne ko jàppale Cheikh Tidiane ca nañ ko waxee te wax dëgg yàlla. Mm-hmm. murit yii. sunu bokk yi taalibe yu baax yi ak kilifa yi yaakaar naa ni sàgganunu sàgganunu ba ba keneen ñëw naan leen jàppale diw am teel ci lii nga jàppale diw yaakaaruma ko ci xel rek toujours léegi ñoom tubaab yi ñu wax loolu journalu Maurice Maréchal Maréchal bi ak ñoom Marianne bi mhm. nga xam ne nu ko créé en 1915 Canard enchaîné Canard enchaîné ba muy juddu Cheikh Tidiane xam lu ko taxoon juddu dañu nekk di démarrer guerre 14 18 1914 at ba ca topp kanaar Canard enchaîné juddu pour joxe comme ni ngay joxe tract joxe information ne lii moo xew ci dëkk bi ñii dugg nañu gars yi fii la ñu toll nii lay demee pour défendre seen dëkk ba tey ba sànq il tire à deux cent et quelques mille exemplaires wala trois cent mille yu manqué xam luy seen objectif défendre les intérêts de la France même si c'est un journal satirique mm-hmm. ñooñu xam nga am nañu fulla ci seen bopp waa journaliste yi nekk Sénégal ñoom du ñu am fulla ci suñ ci seen bopp ñoom itam bañ lu jógee fële rek ñu jox leen ko ñu jël. du canard enchaîné wax na rek dëgg la. Lamine Diack sunu baay bi yàlla na ko yàlla yërëm nan la ñu def pour daaneel ko. Mm-hmm. c'est la presse française mm-hmm. fumiste. Mm-hmm. larbine lâche ñoo jël traité que de tous les noms alors que tout est faux. ñu gëm tout est faux presse sénégalaise jël li tubaab bi doon bind ci Lamine Diack di ko titré fii. na fulla ak fayda ak xam sax. mais comme dañuy wax nu gëstu bañ a jàng rek ñu reste sur le quatre ans Ousmane Sonko aurait reçu douze milliards vingt millions de dollars xanaa douze milliards buy dugg Sénégal ak état wu Sénégal bi wala APR gii ni ñu bañee Ousmane Sonko sa waay bopp ba tey. bala ngaa lan ci aji saar gi nga xam ne ñëpp a ngi naan du dëgg dëgg la la ca des bu dee da ngaa yor lu leer ci 12 milliards yu fi dugg jëm ci Ousmane Sonko yow jarul xuloo jarul xeex jarul ngay faat ay nit Sénégal déedéet jarul ngay tëj dëkk bi yow koy jëlal 12 milliards yeeg yëpp daal ne gis ngeen de mu ngi nii de terroriste la ko ci ñu ne ah ah euh, mi kat ay mbiram leerul kat gën ko yomb boobaa àtte bu leer lay nekk waaw yow nga ñëw tey waaw am naa preuve jarul am naa preuve damay wax benn affaire tubaab yooyu la wax ne ñoom nee nañu diw mi attention patati patata fa ma déparé extrait bi mooy mbiru islam ak mbiru borom ñaari tur <laughs> te ci àdduna bi l'ordre qui existe loolu la loolu la ñuy xeex moo tax ñuy jël équipe football yi takk leen ay brassard borom ñaari tur ne leen faw ngeen takk footballee ko <laughs> imposer ko ci wàllu image nan nga mënee comprendre ab ab ab Idrissa Gana Gueye joueur ñu ne démocratie liberté mu ne moom du sol maillot boo xam ni loolu la mm-hmm. ñu ne dañ koy sanctionner xanaa amatul liberté. no bi ñu imposé man ma am droit ne sama diine daf ma kaa empêché ñu ne ñun yoon newu ci sa diine France di toog ci biir dëkkam ne la doo fi sol abaya doo fi am ñaari jabar boo ko fi naree am da ngay génn suñu dëkk. mais France googu mooy ñëw tey naan la non da war a nangu doon ay góor jigéen ak yaap yaapa la yàlla xam doy na voyez un peu le contraste et ce sont nos journalistes. Mm-hmm. ñooy avaliser certaines choses soxna si. tubaab boobu tey moo ñëwaat tey ne la non Qatar attention patati patata pourtant dans cette semaine et il y a quelques mois les Français on signé deux grands contrats gigantesques vingt sept ans pour que Qatar di leen jox gaz Total léegi Total ñoom dañuy dem bi alal ju dul jeex biir Qatar Qatar na leen ah gaz bi kat nii lay demee teg ay conditions mhm. ñu nangu fay Qatar xaalis bi Qatar jël ba pare ñoom di leen jox gaz parce que Russie fi mu nekk nii tëj na bunt yi. Mhm. waaw léegi ñoom ñii ñoom tubaab yi. dañuy dem fekk dañuy dem fekki ku am fulla ñu tarbiyu ci kanamam mu ne leen nii lay demee. teg ci nag Qatar lu mu soxla ci technologie da ngeen ko koy jox ñun Sénégal ñi am gaz Qatar am gaz ñun ñu am gaz France amul gaz. waaye France lijjanti na ba am compagnie moom nee na yooyu yaay day lijjanti mbiru pétrole ak gaz moo ñuy jaay essence moo ñuy jaay gasoil nangam ak nangam. France googu moom bu demee ci ki am gaz te am fulla day sukk ñun ñi am gaz te ñàkk fayda bu ñëwee nañu damay jël dem ku fi taxaw nag am jëmmi nañ defaan suñu société nañ nangam nangam. ñu ne non non kii nañ ko lijjanti te ab sénégalais la ñuy ñëw mu lijjanti ko. c'est compliqué. voilà l'histoire et après on nous dit non il faut ngeen gën après et c'est là où je dis je, le fais à à à cœur joie mais en même temps meurtri paradoxalement. oui Cheikh Yérim Seck. ak jàmbal Diagne kilifa yooyu maa ngi leen di nuyu en passant di jaale Yérim bu baax à un moment ci àdduna day am fu muy toll foo xam ni da ngay def backup ak focus. Mhm. nga taxaw xool ne dund naa lii yëpp yàlla defal na ma lu ne xaaral ma jéem nag dox ci bu baax bi. Mhm. am loo xam ne day jóge fii mu diis ma mais mu xeex ak moom. pour bañ a bon. essaye de rectifier le tir. parce que aujourd'hui fii ñu toog nii di wall Walf Fadjri au mois de juillet 2004 bi ñu jàppee Madiambal Diagne Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane xulil Sidi Lamine Niass yàlla na yàlla yërëm moo jóg ak ñeneen ñu jóg def jeudi noir benn journal du génn ñëpp pour ma Madiambal Diagne. Mhm. nañ ko taxaw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. nañu waxante dëgg. Ah pour lan la sauvegarde de la démocratie. ñuy dox ba àdduna yi dem ba ma jambal boobu fee mel ni ku féete bu féetewul itam mel ni ku féete ci nguur gi ñuy faat ay sénégalais waxuñu ko cour des comptes nag ak leneen leneen dénoncé méttiwu leen waaye xaalis dugg na ci Ousmane Sonko la jëm boobu métti na leen dañu waxante dëgg y problème. Mm-hmm. dysfonctionnement moo am ci dëkk bi maanaam ñun ñëpp gis leen li xew. topp benn nit fatt ko sonn ko dem nga ba jël ko ba téye ka yow téye nga yow yow nee nga yow yaa am doole téye nga ko doyu la léegi compliqué wu comme yor nga kayit comme yor nga kayit yi nee nga yor nga kayit mm-hmm. juin ba tey waxoo ci ba tey yaa ngi ciy wax génneel kayit yi nekkat xaalis bi dugg na fi. mais 12 milliards xanaa buy dugg Sénégal sa waay douane sénégalaise mu ngi fi. mais bu ñu xanaa état wu Sénégal mu ngi fi ci état bu bu sérieux dëggantaan lii nii est-ce que jarul woon procureur autosaisir ci. directement ah, soxna si. parce que pour mine de rien opposition bi wax na ñu bëri euh, procureur jóg na autosaisir ci yenn cas yi parce que lii te lii c'est c'est c'est un cas grave quand dama lay wax benn affaire tey jii nii li ñu war a autosaisir ak bëri. 1000 hmm. milliards doyul autosaisir dañu wax dëgg rek ñu bàyyi yooyu yëpp 12 milliards la ñuy wax on parle de 1000 milliards. Oui. coronavirus. on parle de kilifa boo xam ni chaque jour mu yónni. nitam chauffeur am mu dem jëli cent millions. on parle de détournement à en finir OFNAC Cour des comptes IGE ñaata problème sanu yaay bi Seynabou Ndiaye jaxate ñaata dossiers la joxoon Bassirou Gueye sunu baay bi plus de cent dossiers. et on nous parle d'un euh, la santé. 71 milliards sanu yaay bi Marie Xemes nu mu ne loolu ci jamonoy euh, euh, avec événement mois de juin bi la woon. ma un marché de gré à gré soixante onze milliards mille millions soixante onze fois ci réew mi nit ñi am jafe-jafe amul hôpital booy dugg ñu faj la gratuitement au Sénégal amul garab sax boo ko soxlaa ñoom amuñu ko sax faf ci seen biir ay pharmacie da leen naan noo demal jënd ko fee après on nous parle de eh sa ministère de la santé hmm. mooy encaisser xaalisu xam nga ban xaalis garab yi dugg Sénégal hmm. module ou molécule je sais mm. benn bu ci nekk buy dugg Sénégal 500000 lay fay benn est-ce que comprendre nga. Mm-hmm. ñaata garab ay dugg Sénégal. kenn ana xaalis bi. ak ñaata pathologie ñoo fi waaw mais contrôle ñiy def contrôle bi Cheikh Ahmed Tidiane ils ont été formés dans l'industrie pharmaceutique ay sénégalais ñenn ñi boo toogoon ak ñoom ñu wax la seen salaire di nga tiit xam nga lu tax ngay tiit mm. da nga naan ñii li leen di fay. te ñoom ñooy contrôle li war a dugg suñu ay biir. ak industrie pharmaceutique ni mu amee xaalis. ni mu amee xaalis ni mu compliqué est-ce que tubaab bi duñu fi jàllale ay garab yoo xam ne yàlla xam doy na. Ah. suñu sécurité. Mm. nga teg ci ndox mi noo naan ndox mi noo naan ndox mi robinet bi ku nu kaa jox groupe Suez. Suez France. googu nga xam ne seen président Macron bi muy door a falu li mu njëkk a wax. mooy africain yi danoo bare. ay famille neuf doom c'est trop démographie moo leen sonal kon xam nga ne kooku mook Bill Gates dinañu déggoo. Mm-hmm. dinañu d'accord Bill Gates bi ñëwoon Sénégal bu yàggul après ce même Bill Gates ñu ne ñu non dafa war a liggéey ak institut Pasteur Bill Gates informaticien la luy yoonam ci santé. Ah. waaye am na alal ba léegi moom xaalisam dafa am lu mu ciy jël di ko jox organisation mondiale pour la santé. kon kooku xam nga mën naa décider. Mhm. organisation mondiale pour la santé muy ñëw ne la coronavirus tëj leen bunt yi tëj leen ñëpp tëj leen jàkk yi. maanaam ñiy promouvoir borom ñaari tur ñoo ne laan tëj leen jàkk yi. ñu nax ñëpp kilifa yëpp jóg. te eh, diine nee na sunu baay yi oustaz jaagas ñi si des ñu ne leen waaw te acca wax leen lu ci diine wax influencé leen ñu toog daan jël aaya ba nag ñu mel ni ñun. naan mbas naan mbas mi. voilà le pays virus ba sa yeneen ya ana ana mbas mi dañoo xëy rek mbas mi dem dañu xëy rek coronavirus dem kenn ba tey ba sànq kenn newuñu liyee ko faj wala lee faju ko. leen daal xam naa ko ci. sanu bi ma ci gën a métti chaise ma ñu dàq ci yeneen dëkk. mais ce qui dañ leen a dàq ay ndax scandale lañ def ci yeneen ñu ce qui est grave ce même groupe Suez mhm. qu'est-ce qu'ils font au Sénégal lala la SDE doon jaayee ci mètre cube mu yomb mu tane nga naan dafa seer mhm. non groupe Suez moom ñëw yokk ka ba pare bi gën a bon tubaab yi bu ñu lay def safaan dañuy jël sax tur ba tuddee la ko seen eau seen ndox jël leen seen ndox ñoo koy defar jox ñu de nañu seen ndox ngi ñun xamuñu sax lu ñuy naan lu mu doon ñu boole kook ay bouillon boole kook musimba maaba kumba li ñu war a lijjanti ci sécurité ak bari mais 2012 à maintenant hélas on ne nous parle que de terrorisme te pourtant ki ñuy wax terrorisme mooy terroriste bi xam nga moo la kan mooy kanu dàqee Mali dàqee ko Niger dàqee ko Burkina Faso maliens yi tey ci benn temps record lu tubaab yi deful ci 10 ans maliens yi def ko ci ay weer pendant dix ans français yi ne mënuñoo jël ki maanaam ki daal chaque jour ñu ne la information. nga jékki-jékki rek France télévision ne la benn terroriste ñaar rey nañ ko ki daal. jàpp nañ ko doo gis koor doo dégg. ku ku ku nu tàggee ku nu tàggawu. ñu dëkkee ko dix ans. wu yàlla international xam ba Maliens gàddoo seen dëkk lan la Maliens def. ci ñaari weer ñetti weer ñu nangu ki daal. ki daal ah. dafa fees dell ak or. tubaab bi dañ la naan kenn mënu faa dugg ne armée bi mënu leen fa dem. parce que y' a trop de terroristes bi di dem. voilà voilà la réalité sunu ay autorité président Macky Sall ak ñi mu àndal dañ leen di ñaan damay sukk di leen ñaan ne ànd leen ak ñun ànd leen ak sénégalais yi n'acceptez pas que tubaab yi di leen orienté ana ñu fu ñu nekk jamono bi fu ñu ne ñu nga ñu nga France. Mhm. kilifa yi du ñu nga France. Mhm. lu fa xew Amadou Ba du ma nga fa. lu fa xew du ndaje. ndaje ndaje bi lan la. ñaari gouvernement yi. waa lu ñuy daje. yow ñaari mois élection lu ñuy daje ak France yoon ci loolu. waxtaanee accord ak protocole mais aujourd'hui France dafa toll ci guute koo xam ni ñàkk naa Niger ñàkk naa Burkina ñàkk naa Mali il est de question may ñàkk Sénégal ak Côte d'Ivoire teg ko ci lan doole ak ak ay njiit yoo xam ni dañuy mel ni complice c'est compliqué donc boo ñëwee tey naan ñu noo waa ji dafa jot xaalisu kii. am na ñeneen ñuy jot leneen te waxuñu ko. Mhm. les plus grands scandales du magistère du président Macky Sall passeport diplomatique ñu ñu ko jiiñoon du ay député APR anañu. ñu assemblée. anañu ngi dox seen soxla. boobu bu jàll na amul problème donc y' a pas de souci. faux billet. ñu ngi seen soxla. Mhm. rapport cour des comptes yi. mu ci tontu yi. waa Cheikh Ahmed Tidiane benn moment dëkk nag boo leen di daggal. ay ndey yu ñaaw ñuy encaissé rek baax loolu nag nangu tey doo ne tekk nag. Sénégalais kay dangay am sa tuuti sax ñii après nañ am sunu kersa tuuti après ñi ñu àndal nañ am tuuti sunu kersa tey la ajjuma nañ ñu warmal tuuti. Mm-hmm. jërëjëf. amati na solo jaajëfalu bu baax a baax euh, euh, Pa Assane on a voulu parler d'autres sujets mais euh, daanaka benn bi rek. tënk na benn benn benn rek jënd semaine. benn rek jënd semaine oui. njombe yi ñu fi def. parler des des scandales des financement parti politique et euh, euh, maa ngi doon liir également foofu benn benn texte bu am solo boo xamante ne dañ ci woon euh, suggérer ne que financement parti politique yi pour jeexaloon ko rek leen donc le président Macky Sall waroon def respecter le statut du chef de l'opposition voté nañ ko 2016 waroon nekk kenn tey jii bu nekkoonte ne dañoo ne carrément que c'est Idrissa Seck qui est le chef de l'opposition mais malheureusement moom xaw ñoom mais dem na le chef de l'opposition kan moo ciy topp ku dul la kon bu ñu ko joxoon maanaam dayo gi mu war a jox ak non non seen seen xol seen xol may jox ko oto yi a jox parce que est-ce que le chef loolu appel appel appel Sénégal nattub Sénégal mooy dañoo fal benn régime boo xam ne xol lay doxee ñun doxewul ak ñun xel c'est triste lu ñu voté xulil la lan lañ fi voté wul lu am importance bare na du xaaj du jeex mm-hmm. Sénégal du réew jullit du dañuy wax ni dañoo am diine APR ñu ne leen criminaliser leen borom ñaari tur yii góor jigéen def leen ko crime ni ngeen defee viol crime ba ñu waxee viol dañoo gaatu joxe ko billahi wallahi talahi excaf la ma toog télécom mm-hmm. télévision ma ne gars yi j'espère que loi bi ñuy voté ni baa duñ ko tuumaal nit barke alxuraan mm-hmm. nii laa ko waxee 2018 baa duñ ko tuumaal nit am na mm-hmm. ab politicien jàpp ko maanaam bu ñu bëggee taqal nit dañ koy jiiñ viol tëj ko mooy bi gën a gaaw waaw boroom ñaari tur ñu ne criminaliser leen ko ngeen lànk APR ngeen dee ne kenn du ko fi voté lan la kanu ko jiin. kaka doon kaka am ña ci bokk ña ka doon wala. ba mu ba mu nekk problème. loo xam ne <laughs> këru diine yi ñëpp d'accord nañ ci. foofu nag lay wax sunu këru diine yi itam yàlla dëgg la bëgg tey la ajjuma. Mm-hmm. ñu koy wax sunu baay yee oustaz Diaga ak ñu mel ni ñoom. bis bu jot ñu wax nu xaala law yàlla nee na mais yàlla li mu wax day ànd ak jamono bu fekkee ni ñu ngi toog di dund si jamono gis ab acteur politique muy def naka su dul noonu lu ñu wax lu ci diine wax. waaye ñun rek la waar ñun. ñun daal ñun ñu yor pouvoir yor ñu dara ñun mun nañ ñoo waar lu tax du ñu waar borom borom borom nguur yi. ne leen li ngeen taxawee jékkut l'islam nanguwu ko. Euh, xëy na amuñu doole amuñu dara jërëjëf Pao Sané kon se retrouve vendredi prochain incha allah léegi léegi dañuy dem ci chronique des sports sans plus tarder léegi léegi kon Cheikh Tidiane Gomis hmm? dañuy ñëw wax nag ci